samedi bi mu euh xaruñ dimanche dafa jot rek euh, sunu leader Thierno Ndom comme nous nous ko yàgg a dafa mujjé nek sax naturel parce que xarul ay taw wala ay inondation pour être à côté des populations donc bi mu rek mom dans la nuit xamna né tawna té amna ay dégâts motax mu joxé le lendemain ñu ñu mobiliser ay ay pompes six pompes yoo xam ne dañ ko éparpillé à travers le département de Pikine touché na commune bu mel ni fi ñu dëkk Pikine Ouest touché na Guinaw Rail mais également touché na euh, fële nga xam ne moom mooy Yëmbal euh, touché na tamit euh, commune bu mel ni commune bu mel ni donc Yëmbal donc voilà commune yooyu yëpp moto pompe yi dem nañ fa aidé nañ soulagé nañ population yi parce que fexe nañ ba pompe ba ndox mi xëy na bu jeexul it wàññeeku na bu baax a baax tey nag loolu moo taxoon ñu def visite bi pour xol fi ñu yóbbu moto pompe yi te feesoon dell ak ndox voilà toll na ci juroom benn moto pompe yu mag yo xamné déplacer nañ ko éparpillé ko un peu partout tunnel ginnaaw raay bi par exemple euh, fi nga xamee ne euh, fa la kooku ñàkkee bakkanam foofu euh, pompe bañ ko bañ fa yóbbu peut-être mo wañi ndox mi sax bañu mën ko gis euh, euh, camion yi mat nañu euh, juroom benn camion yo xamné dañ ko louer dès dimanche bu ci nekk def na va et bu mat fukk soo ko multiplier mu jox la 60 euh, euh, va-et-vient yoo xam ne camion yooyu def nañ ko di manque ndox mi di ko génne tey nag ci visite bi constaté nañ ne fépp fu ñu ko yóbbu woon gis nañ ne am na soulagement parce que ndox mi presque jeex na waaye tamit gis nañ ne euh, fu mel ni jàkk Misra bi gis nañ ne jàkk ji dafa am jafe-jafe yu rëy Euh, parce que tey jii euh, comme ni ko comme ñoom ni ko waxee wóoratul sax ñu fay julli ñoom nag porté nañ suñu seen doléance dañoo bëgg a daaneel jàkka ji loolu tamit dinañ ko porté suñu leader euh, te moom lépp lu yëngatu ci gox bi souvent du xaar sax ñu wax ko bu ko yëgee rek li mu ci mën dina ko ci def te gëm nañ ne aussi lii buñ ko yóbboo li mu ci mën dinañ ko ci def askan bi sax gaa ñu ngi góor góor mi mais nañ yokk gën a la parce que bu top inondation yi ba faté Covid bi tax Covid bi mi ngi fi té ba légui day fat ay bakkan donc dañ leen wara bolé bolé ñaar yi gor gorlu ba inshallah bu inondation yi dem Covid ba jaaraale fa dem loolu lañuy ñaan mais ma bëggoon terminer rek ndax lu am solo la Thierno limuy def ni yépp diko defal population Pikine da koy def ci turu président de la République té néna nañ wax né moyen yi muy def ni yépp aussi c'est parce que président da koo